ci weeru màgg yi nga xam ne itam mooy anniversaire wu alquran euh, nuyoo yooyu nag ñu koy def si euh, turu jëwriñ ji alaaji sëriñ Seck ñu si njëkkee itam euh, ki nga xam ne suñ ko tuddee rek dana mën a yóbbaale nuyoo bi jëm ci kilifa yëpp muy sëriñ bu mbakkee moom sëriñ Fadilu ñu teg nuyoo bi ci ci loxoom ginnaaw bu loolu jàllee itam ñuy sant bu baax ak dalal Euh, ñi nga xam ne ñooy famille bu parrain bis bii di waa kër Serigne Dame Abdourahmane ak itam famille bu invité d'honneur bu bis bi di waa kër Serigne Mor Diop bu bu Ndar bu loolu jàllee itam ñuy sant bu baax ak euh, félicité ñi nga xam ne ñooy mbooleem personnel bu C3S pour bien entendu li nga xam ne jàpp nañ ko ci liggéey bi mën nañoo wax sax ba édition yi commencé depuis première édition ba léegi mësuñu am ak ak ak ak ak noppi di xool naka lan mën a def ba bis bii di jàkk loolu itam particulièrement cérémonie bii nga xam ne ci ngeen ñëw teew yéen ñëpp euh, ay itam di félicité bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa commission scientifique ci njiitalu euh, Serigne Khadim Ndiaye olof dafa wax ne sa mbir bul ko jox sa waay waaye jox waayam ñii ñooy waaye alxuraan waa c 3 tàmm tàmm leen jox leen liggéey boobu te ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi topp liggéey bi xam nañ ne boobu ba tey mësunoo dañ itam di xool nu mu gën a rafetee ci qualité ba mu gënee ak na mu gën a jaaree yoon. ginnaaw bu loolu jàllee itam c comme ni nga xamee itam muy kër goo xam ne ba mu sampoo macha allah yàgg na muy liggéey bu baax waaye ñu leeral ba tey ne c 3 day day participer bu baax a baax li ñuy wax politique de l' emploi des jeunes. di employé fi mu toll nii lu ëpp si junni doomi aadama ñu si eh, yaxantu di si amee seen wërsëg loolu itam baax na bu baax a baax ñu xam ne eh, foofu rek la nekk ngir xam ngir jéem a xool naka la eh, réew mi di jariñoo ci C3S mooy suñu yitte bi loolu jàllee itam comme neen ko baaxoo defee itam dans le cadre de li ñuy wax RSE muy responsabilité sociétale C3S di si defee action yu baax a baax a baax di ko di ko di ko di ko jëfee waaye dem ba gis ne itam concours bi aw yoon la ci action sociale yooyu mu mu mu jëm fa teg tànkam ndax itam suñu borom comme ni mu ko waxee ci ci ci alxuraan loolu sax doon na doy ñu xam ne bu buñ ko deful woon itam du tee téere bi nekk fa mu nekkoon inaa nahnu nazzalna zikra wa inaa lahu la xaafizuun kon loolu dama moom laa tudde ne man loolu bërigo ci mbartal la soo poussé mu dem soo poussé itam mu dem waaye itam daf saa teg loo xam ne maa ngi jéglu ndax man ndongo daara bu français la bu fa bu yamoon foofu rek danaan bëri ko ci mbartal la waaye daa am lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam dana ko ce livre le Coran est bien entendu pour vous et pour votre peuple un rappel et vous en serez interrogé kon loolu aw aw aw aw aw kii la loo xam ne loolu suñ boroom moo mi ngi koy wax ne ko yow ak sa waa kër wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusalun loolu kon day daal di am obligation boo xam ne kenn ku nekk si ñun war naa am ab taxawaay bu mu am si téere bi bi loolu amee nag la c 3 gis ne lii kon aw wàll la loo xam ne mën na see liggéeyal yàlla sunu borom muy wax ne itam réussite bu mu ci am bokk na kook ñi nga xam ne ñooy euh, sëriñu daara yi ndax ñoom la ko defal dëgg bokk na ko itam euh, ndongo yi bokk na ko itam ak képp koo xam ne autorité la moo xam ñi ndénk njàng mi ak ñu mën a doon ndax ñoom la koy defal da leen a teewal fii bépp jullit C3S jàpp na ne kon dala teewal ci liggéey bi waaye jàpp na ne yow mënoon nga ko taxawee comme ni mu ko taxawee ginnaaw bi loolu jàllee itam muy encouragé bu baax a baax daara yi ngir ñu gën saxal lii nga xam ne mooy mbind mi ci seen daara yi encouragé waaye itam nag di ñaan way jur yi ñu gën a bàyyi xel euh, ne ndongo bi wala seen doom yi nii nga xam ne dañ leen yóbbu ci daara yi nga la nan am euh, tuuti jot rek may leen ñu ginnaaw njàng mi ñu jéem a xool naka la naka la ñuy bind ndax mbind mi dafa bokk ci li nga xam ne euh, day day day day day day bokk ci li nga xam ne dafay saxal mokkal gi kon xam naa rek ñu bañ a ñu bañ guddal bu baax a baax ñu xam ne mu ngi fàttali itam ne lépp loo xam ne jaam bi mi ngi koy mi ngi koy sàkku mu ngi ci téere bi ni wax ne alxuraan day day soigné waaye day guérir maanaam soigné ak guérir nee na bokkul man ngaa mën ngaa faj taw doo wéral alxuraan day faj di wéral mu ne itam day day day am protection ak sécurité alxuraan itam day aar ba pare indi ci protection day day maye fan gudd ak wér-gu-yaram day maye également li nga day joxe wërsëg te di ko barkeel maa fi naa fil kitaabi min shay'in bépp science boo xam ne dañ koy làmboo itam mi ngi si biir alxuraan kon dafay jaral rek di leen gën a di leen gën a euh, soññ ngir nu gën a jox yitte téere bi li nga xam ne nag fa lay jeexale te muy c 3 ci boppam nekk ci biir réew mi nu koy ñaanal muy ñaan ci mbooloo tedd mi nu ñaanal ko objectif am mu atteindre ko te mooy ni mu amee juróom-ñeenti taxawaay ci biir fukk ak ñeenti euh, régions yi nekk Sénégal ñu ñaanal ko mu dem ba wër Sénégal gi yëpp waaye itam ñu ñaanal ko mu dem ba euh, mën a tasaaroo ci sous raison bi yëpp. loolu fa la ñuy jarale daal di ñaanal bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy candidats yi di xamal boole bi ne kenn si ñoom déméritéwul tey ji nekk lauréat waa scientifique. particulièrement waa jury bi bu ñëwee di si wax danañ gis ne xaj na ni ñu ko baaxoon defee rek seen diggante yi ñuy rawante ay points yu néew a néew lay doon kon muy leeral ñëpp ne kenn démérité wut ñoom ñii ñëpp lu kenn man ci moom ba jël premier ñu topp si ginnaaw mënoon nañ ko. ñu leen encouragé bu baax di ñaanal ki ki gën ci ñoom wala ki nekk meilleur ci ñoom daal di yóbbu li nga xam ne mooy euh, trophée bi nga xam ne moo moo jiitu ñu daaneel suñuy kàddu waaye fi ñu koy itam. na ma bëggoon rek woo ñaar si waa c 3 su ngeen gisee décor bi suñ ginnaaw ak li ko jiitu woon si édition yu mujj yi yi jàll yëpp euh, lépp conception bi lépp c 3 la jógee kon ñu bëgg woo ñaari techniciens yoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mu agsi fii muy seriñ Modou Mamoul Fall ak euh, sëriñ Pape gay ñoom nag seen sant yi xam naa <laughs> kii Gaye la sant kii Fall. sëñ Mamoul Fall kon nañu kon sëñ Modou Mamoul Fall ñu jox ko rek benn jaay sa boo xam ne. comité bi yépp ñoo ko ñoo ko defar ba bëgg ko jox mook sëñ euh, Baye Fallou Baye fàllu kaay jox ko diplôme bi ñu jox ñu jox sëñ Modou Mamoun Fall kon ni ko sëñ daan waxee defe naa décoration bi ñu fi ñëw ñëpp bég nañ ci te sagub daara la ñëw leen ba nii ñëw leen ba nii ci kanam ndax caméra bi jël leen sëñ kii dangay ngay dellu ginnaaw mu jox sëñ Mamoun ba pare jox waaw sëñ Fallou ñëwal ñëw leen ci kanam bisimilah. aywa xool leen ñu foto leen ngeen tàccu leen waay affaire bi da ngeen a yërëmtalu lool xaw ma koor gi la <laughs> ah jërëjëf jërëjëf sëñ Dad euh, beneen bi beneen diplôme bi ku ko moom kan lañ koy jox. sëñ euh, Papa Gueye. sëñ Papa Gueye sëñ Papa Gueye ñu jox sëñ Mbacke Abdourahmane mu jox ko diplôme am ñëwal nii ci kanam diplôme d'honneur wala remerciement ci liggéey bu rafet bu xereñ bii nga xam ne ñi jàkkaarloo ñun ñëpp rafetlu nañ ko ñu tàccu leen bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf sëñ dan jërëjëf kon sëñ dan jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Mbacke kon ñu wéyal programme bi mm-hmm. euh, gannaaw kàddu yooyu sëñ daan yëkkati yëkkati ko ci turu personnel u yëpp mm-hmm. bu ñu demee ba ci jeexitalu jotaay bi danañ yëkkatiwaat yeneen ñaari kàddu kàddu gu bàyyi ko ci kii waxal euh, alaaji sëriñ ak kàddu Baye Fallou mi nga xamante ne moo jiite woon liggéey bi ànd ceeg mbokk yi kàddu yu remerciement رحمة ربك بمجنون